directrice nouvelle, je dirais, pour euh, la communauté musulmane, pour mm -hmm. la Oumma islamique. Mm -hmm. Tantôt, on a suivi euh, Oussa Saloun Sal avec euh, Abdoulaye Bob, bien sûr. c'est vraiment le cœur meurtri. On a senti un homme avec un cœur meurtri parce mm. que ce fut un compagnon et un ami. Mhm. Une raison qui explique un peu, qu'il avait un nœud à la gorge et qu'il ne pouvait pas trop s'est sur ce décès qui a pratiquement mhm. surpris tout le monde. plus d'un alors euh, ben, ça c'est voilà, une nous surprise nous présentons nos condoléances à toute sa famille à ses amis à ses proches parents et puis à toute la Oumma islamique Bijou bien sûr nos condoléances les plus attristes, euh, attristées donc euh, voilà raison pour laquelle euh, là nous sommes euh, avec les auditeurs et nous dirons tout le monde pourquoi pas bien à vous Ramatoulaye voilà donc euh, ce sera justement une page qu'on va ouvrir Bijou pour permettre à à ceux qui le veulent bien de rendre un dernier hommage à cet homme voilà donc euh, sur les ondes de Walf FM on est justement en direct avec Oustaz Assane euh, Diouf ñu fas yéene jël ko rek moom tamit ndax mi ngi foofu ci bërëb ba xam naa ni nag euh, dañuy dem nuyu ko Oustaz asalaamaaleykum allo Oustaz Assane. tey. asalaamaaleykum Oustaz. waaw waaleykum salaam wa rahmatullah. waa kay oustaz kon nag euh, xibaar bi dégg nañ ko ci suba muy euh, tiis koo xamante ni nag moom moo wàcc du ñu def lu dul bàyyi la kàddu gi nga am loo ñu ci dénk rek euh, ci li nga xamante ni moo di nouvelle bi gannaaw bañ la ko jaale. jërëjëf Ramatoulaye Sarr ñu ngi lay delloo njaal di ko delloo sénégalais yëpp ndax sénégalais boo tos taseel tey rek mën nga ko wax ci gindigaale waaye moom itam mën na la wax si gindigaale mhm. ndax ki Euh, euh, am na ay cause yu bari yu mu doon euh, bëri ci biir askan wi waaye amul benn cause boo xam ne ci boppam rek lay dellu loo gis mu yëkkati ko ci ay kàddu boo ko seetloo bu baax a baax da ngay fekk muy dellu ci askan wi muy loo xam ne ci valeur yi la défendre valeurs yi teg Sénégal yoon wi nga xam ne suñu kilifa diine yi ñu nga ca doon jaar boo seetloo Imam Ndaw ak ay messages yi mu doon kile ak langage yi mu doon tenir ci biir askan wi nekk koo xam ne nitu message la nit la koo xam ne euh, ku ku doon liggéeyal askan wi la ba wàcc liggéey tey kon askan wi yëpp ku ci nekk rek war na mën a jaale boppam ne ko sigil ndigaale euh, soxna Ramatoulaye mhm. Sarr à travers yow maa ngi koy jaale mboolem kilifa diine yi di ko mhm. jaale nag mboolem kilifa aada yi waaye itam di ko jaale ñi nga xam ne surtout ñu nga ca bitim réew nekk ay sénégalais euh, tiis wi ñu dégg ko waroon mën a nekk fii ci Sénégal te euh, sore waay tax ba mënuñu def loolu ñoom ñëpp di jaale leen baax a baax waaye itam jaale euh, njabootam njabootu boppam bi nga xam ne mhm. ñoom la nekkaloon ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu fekk ko fa muy jëm waaye itam mu toog toogal ko moom yàlla mhm. fi nga xam ne moom jógee na alors oustaz xëy na dikkat rek ci li nga xamante ni moo ay euh, maanaam euh, li nga xamante ni moom la amee woon taxawaay fii ci kër gi ndax yàgg na saa su nekk dañ koy gis tamit ci plateau yi donc mu mel ni amoon na benn relation bu particulière tamit ak euh, jëm si yàlla gi di El Hadji Lamine amoon na relation boobu soxna Ramatoulaye Sarr ak kër gi mhm. waaye amoon na ko spécifiquement ak kii di Sidi Lamine mhm. ndax xam nga ne bi nga xamante ne tuumaal nañu ko teg ko loxo mhm. El Hadji Sidi Lamine Niass bokk na ci ñi nga xam ne ñoo porté combat bi di ko liggéey ci ay niveau yu kawe kawe ci façon bu nekk ci plateau yi ak ci euh, même bi mu toogee ak euh, njiitu réew mi sax wax na ko ci ay yoon yoon loolu euh, bokk ci li nga xam ne sax moo ko génnee moo ko setal ci tuuma boobu ñu ko tuumaloon moo ko génnee ci foofu kon digganteem ak ak Walfadjri démb la woon lu lu jiitu tey waaye itam digganteem ak ki nga xam ne mooy borom Walfadjri weesu na sax foofu ndax. Euh, ay relation yoo xam ne relation wu euh, daara la. doxoon mhm. na ci seen seen ñaari famille nga xam ne moom mu ngi bokk ci famille boo xam ne li ñu leen xamee foofu mooy alquran. Mhm. li ñu leen xamee foofu mooy euh, woote jëmale ci yàlla moo tax loolu yombaloon lool li nga xam ne am na diggante diggante ak Seydi El Hadji Seydi Lamine xam nga ne itam ku disponible loolu la fii ci Walfadjri mhm. euh, boo ko daan woo rek boo ko wowaan rek mu dal di ñëw euh, dal di euh, def émission bi nga koy bi nga koy bi nga proposé mhm. man sax semaine bii nii sax maa ngi doon xalaat loo xam émission boo xam ne mhm. ne naa format boobu bu ma ko jëlee naa ko ci woo fekk déggu moon feebar bi ndeke lii la yàlla dogal yàlla dogal mi ngi noonu ko Oustaz Assane ñu lay jaajëfal bu baax di la masawaat euh, ci euh, tiis gile di xam ne rek ni euh, Walfadjri kon nag dañu fas yéene rek ubbi tamit antenne bi kii ngir képp koo xamante ni ci Sénégal fas yéene rek dénk tamit rendre ko hommage ndax ñuy fàttali rek nag moom Imam Alioune ndaw nag daal dina rek génn àddina nag bi su guddi gannaaw nag bañ ko yóbbee fële ci hôpital Fann Oustaz Assane ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. jë eh ah, jërëjëf euh, Ramatoulaye Sarr ñu ngi lay masawu bu baax a baax. jërëjëf voilà donc euh, comme euh, dit tantôt nous allons ouvrir euh, nos antennes à vous euh, chers auditeurs afin de rendre un dernier hommage à cet homme. Imam Alioune Badara Ndao qui a mené plusieurs combats et qui était également un habitué de la maison on l'a vu sur plusieurs plateaux ici notamment Balance avec Pape Ndiaye alors ñu jël kooku nekk ci buum bi allo. asalaamaaleykum oui asalaamaaleykum. aleykum asalaam. soxna Ramatoulaye Sarr Thioune. ñu ngi lay ziar bu baax. waaw maa ngi tudd Malick Cissé dëkk Medina Parka. ñu ngi waaw maa ngi jaale Sénégal war ngal képp liñ bokk. Mhm. te alquran moo wax ne tabaaraka la si biyadihi l mulku wa huwa ala kulli shay'in qadirun. Mhm. allati xalaqal mawt wal xayaata. mu dellu wax ne kullu nafsin saa'iqatul mawti. Mhm. mu dellu wax ne kullu man xalayha faanin kon Oustaz Alioune Badara Ndao yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana ci génnadul firdawsi tax ñi si barkeem si barke nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf ñu jaajëfal ko xool rek keneen yi tamit ci ginnaawam amaana dinañu jot tamit suñu naataango bi ñu toogal fële ci diwaanu Kaolack di rek Alhassane Ba ngir moom tamit xool euh, tiis bi nga xamante ni nag tey wàcc na ci askan wi waa kër euh, foofu la ci kaw Kaolack également ñu xam ne fa la cosaanoo ana nan la ñu rek accueillir bii nouvelle euh, xaalis yi du ñu def également lu dul rek ba tey làmb keneen ci buumu jokkoo bi. ñu xool asalaamaaleykum wa rahmatulah aleykum asalaam wa rahmatulah. soxna Ramatoulaye Sarr. oui. Ousmane Diouf Talibe El Hadj. sëñ Ousmane ñu ngi lay ziar bu baax. soxna Ramatoulaye Sarr. Mhm. bala ma koy jaale kenn mhm. wal fajri laa koy jaale. jërëjëf. wal fajiri laa koy jaale wal fajiri laa koy jaale bala may dem si njaboot di ko jaale Baye Cheikh Tidiane umay ma ñes ta leew na ñes mhm, di ko jaale mboolem kilifa diine ku nekk ci Sénégal soxna Ramatulaay mhm. am naa mbetteel bi ma amoon ci alaaji di la mu ñes tey jii wallaahi alhamdulilah am naa ko tey jii mhm. euh, parce que imaam imaam dafa nekk imaam boo xam ne imaamu ñëpp la imaam boo ko xoolee boo boo da ngay xool tellement yi imaam Alioune Badara Ndao bi rek sa adduna yëpp day kon imam Alioune Badara Ndao damay ñaan yal na ko yàlla xare aljan yal na ko yàlla dajale alaaji siid lamin ñes yal na ko yàlla dajale xaritam si barke Cheikh Ahmad rahmatulahi taala xol fees na mhm. waaye nag yàlla moom moo ñu ko gën a bëgg jël na ko mhm. te yàlla na yàlla dajale ak Seydina Mohamed yal na ko yàlla fay lim doon jàngal ci alquran mhm. lim doon def ci ndaw imam Alioune Badara Ndao buñ la waxee li lim cadre yi mu am da nga naan dee kon nag xol fees na waaye yal nañu yàlla jox ñu xolu xolu muñ ba Cheikh Ahmad Tidiane Ramatoulaye maa ngi koy jaalaat tous wal ku nekk wal faji jërë ngeen jëf ñu jaajëfal ko moom El Hadj Ousmane ñu jël Alassane Ba fële ci diwaanu Kaolack Alassane ñu ngi lay nuyu Ramatoulaye maa ngi lay fay waaw yaakaar naa ne tiis ki euh, jot ngeen ci euh, nouvelle bi euh, ñu bàyyi la rek tamit nga wax ñu tuuti ana nan ngeen ko jële foofu le ci diwaanu Kaolack yi tamit waaw rahmatullahi nekk na mbir moo xamante ni euh, dama koy euh, commencé par jaale Sénégal yëpp imam Alioune Badara Ndao ndaxte nekkoon na nit koo xamante ne ràññeeku na loolu ci wàllu li nga xamante ni moo di diine bi tey ji nag demam mm. euh, xaw na bett trop ci ñi nga xamante ni vraiment jegewuñ ko woon noonu daal di koy euh, sori mm. bett na ñëpp ñëpp ñëpp ndaxte nit ki démb rek maa ngi gis ñu ngi lancé benn cagnotte ci internet bi naan euh, dafa il est gravement malade mais nag euh, ba mbir mi xewee woon euh, ki nga xamante ni moo di rakkam ji Abdoulahi Ndaw mhm. ma laaj ko mu ne ko waaw euh, imaam mbir moom xaw na bett de mu ne ma ma ne ko li yàggut de mu ne ma imaam ne moonte juróom-ñeent juróom-benn weer a ngi nii muy sooxaale ak feebar bi waaye suñu borom def na li nga xamante ni moom moo gën Euh, di wax nag ci diiru juróom-benn weer yooyu rama mun nañu wax ni benn événement daanaka gàntalu ko fu ñu ko fu ko diine mu soo day ñëw. Mm. Euh, fu ko askan wi wooyee soxlaa tamit da ngay gis mu dem te du benn yoon ngay xool ci xar kanamam gis ni kii dafa feebar wala ah, am na dér am na dara lu koy waaw gis ni kii dafa tawat wala am na dara lu koy lu koy métti loolu nag ci jàngee ci lu bari ci uh, ngëm yàlla ci njàngale bi muy def waaye aussi ci référence bi nga xamante ni moom la ci uh, nit yu bëri uh, tey ji mun nañ wax ni lislaam moom moo ñàkk nit ku màgg nit ku tedd waaye nag ci dundam liggéeyoon na ko fi ndaxte daara ju mag ji nga xamante ni def na ko foofu ca ca ca këram waaye tamit ci ay tool woo na nit ñi ci jàng woo na leen ci liggéey woo na leen ci li nga xamante ni moom moo di ah, diine mm-hmm. kon tey ji bu demee euh, population bi ñu bëri dinañ yëg ni nit ñàkk na waaye tamit préparé woon na ay arrière am ndaxte lépp ci njabootam lépp ci ay jegeñaalem tamit teg na leen euh, ci yoonu diine boobu te ñu ngi koy doxal ci euh, nu mu waree dem bi bett na waaye tamit jullit bu ne wala nit ku nekk da ngay xaar bis li ci doon gën nag moom mooy mm-hmm. mu fekk ne la la fi borom bi bàyyi woon yaa ngi ko doon def te am nañ njort bu baax ni imam la mu warlu woon ak sunu borom mu ngi ko def uh, di ko ñaanal uh, fi nga xamante ne rek uh, la ñu jiitu yàlla defal ko fa ay gëneel ak liggéey yi nga xamante ni mu doon def mu fekk ko fa leneen nag lu yitteel li nga ah. xamante ni tiis bi mooy ci këram kañ lañ koy denc ak fan lañ koy denc lépp mm-hmm. daañ ci euh, ñëwaat ci kanam ci ay xibaar yu gën a yaatu ak euh, yu gën a leer rahmatulahi taala ñu jaajëfal la bu baax alhassan Ba mooy suñu naataango bi ñu toogal foofu ci diwaanu kaw Kaolack ni mu ko waxee rek euh, lépp lu aju ci rek denc moom Imam ba dara ndaw ci njaboot geeg lépp daal dinañu ko baaxee fii ci Walf FM 99 point 0 ñu wéyal ba tey rek daal di jël keneen ki nekk ci buum bi allo. waaw allo Rama. oui El Hadj Fallou. maa ngi sant ah man day imam ndaw lu ma koy qualifié seexandoo Sidi Lamine dem na ci ci ci julli bi seexandoo fii Sidi Lamine dem na euh, euh, am na benn takk boo xam ne it def naa ko ci nit buy dund ngay xel xel xel yaar ci nitu yàlla la wala du nitu yàlla bàyyee ko xel bis bi ñuy faatu talaata la faatu maam alaaji Malick talaata la faatu sëñ Touba talaata la faatu maam lay Niass talaata la faatu kon wax dëgg yàlla du ma ne moom ñoo ñoo tolloo maqaam waaye wax dëgg yàlla ci nit ñu baax nga la bokk que talaata c'est pas évident maanaam bu ñuy werante naan nit ku baax nga ak nit ku ko bu fekkee du dëgg bis booy faatu dana feeñ en tout cas ñu ngi koy jaal umma islamique bi man xamante woon naa ak moom yàgg na li koy firndee rek am na xale bu doon jàngal sama doom yi moo doonoon goroom deux mille xale am na am na am na ngénte buñ doon ngénte këram deux mille moom fekk na boobu ma xamante ak moom muy jëmm joo xam ne wax dëgg yàlla ah euh, Sénégal perte c'est-à-dire bu dem ñëwee moom dem am na ba pare mënatoo ko retraper waaye li mu waroon a def def na lu bëree baree bëri éveiller les jox na benn personnalité jullit yi jox na benn personnalité doomu daara yi jox na benn personnalité citoyen sénégalais yi am na benn conférence bu muy def fii ci weeru koor la koy def bi biñ ci tàmbalee éveiller les consciences ak léegi ëpp na trente ans laalo chaque weeru koor mooy dajale jigéen ñi koñam defal leen con euh, euh, kii autofinancé presque mu ci ci ci loolu la la daa développé moom musul bëgg question banque yi musul bëgg yi moom autofinancé def leen de telle sorte que yéen ngeen di financé seen bopp daa ci joxe ay kii mas na man maa ngi sant yàlla lii waxuma ko sax pour bàkk waxuma ko pour kii benn bis laa dajee moom ci benn dëj mu ne su fekkoon benn jullit bu ne booy julli ji jumaa nga jël cent franc boo demee yóbbu ko ci jumaa ji yàlla xam na ne ak léegi mat na vingt ans amul benn bis bu may julli ji jumaa l'ensemble samay jabar samay doom yëpp dama koy totaliser bu ma demee yóbbu ko ci jumaa ji ak juma bu jot nag te loolu maa ngi ko koy sant di ko gërëm profito ci antenne bii di wax ne loolu rek mun na suqale jàkka yi ab ndigtal la woon boo xam ne man de wax dëgg yàlla rëccu ma jëf boobu ma ko doon jëfe wax gii ma koy wax nag waxu du du du bàkku du ndég ndéggital du leneen mais dama koy wax pour c'est julli bi partagé ko te xam ne jàkka yi mooy lieu bi nga xam ne nii vraiment mun na taxawu julli di ci lu bëree baree bëri te jàkka yi dañuy am ay jafe-jafe bu fekkoon kuy julli ji àjjuma ngabbu cent franc bu fekkee sa famille mën na fukk nga yóbbu mille franc bu dee mën na vingt nga yóbbu deux mille su la ko yàlla mayee en tout cas dina suqali jàkka yi bu baax a baax man loolu laa retenir ci moom mi ngoo ko ñu jaajëfal ko rek di leen ñaan ngeen tënk ndax euh, képp ku ci bëgg dugal rek ab kàddoom mën a jotee ci buum bi Mouhamed ñu jël ko allo. waaw rahmatulah. ok madame ñu ngi lay baax di la mm-hmm. ziar. Mm-hmm, di la fay. di leen jaale Alioune Badara Ndao. Mm-hmm. di ko jaal waa Sénégal yëpp. di ko ñaanal yàlla itam yàlla mi nga xam ne dara taw ko. yàlla na ko xaare àjjana fi daw si. amiin yaa rabbal aalamiin. mett na trop nag ram mett na trop. waaw ah, soo ko après eh, métti bi passé eh, na ko mais dañu dellowaat lépp yàlla rek comme yàlla moo ko joxoon jëlaat jëlaat ko ñu delloo ko ci loxo yàlla rek mm-hmm. naqaru xol laa ci am tuuti. Mm-hmm. Eh, bon naqaru xol ma ci am man te mënu ma ko ñàkk wax mooy condition yi nga xam ne moom moo ko toogoon foofu seen rajo bi wax ko ne bi ñu demee ci kaso bi. Mm-hmm. loolu lañ ko doon def man loolu laa am naqaru xol parce mag. wax dëgg yàlla kenn waru ko teg yenn yi xale sax kenn waru ko teg yenn yi moom moo ko wax àdduna bi yëpp di ko dégg duñ ne ñun xamuñu lu ko yóbbu de mais am na ñoo xam ni dinañ am gàcce tey pour dugg ci rajo di wax ci imam Alioune Badara Ndao wala dem sax di ko jaala ji parce que wax dëgg yàlla li ko état bu Sénégal liñ ko ji rafetul liñ ko ji moom maa ngi koy ñaawlu ba ca kanam yàlla te ñoom ñoo dem tee ko ñetti at xëy xëy ne deful dara kon nañu xoolaat suñu bopp te gis nga nit lu ndaw da koy dal gis nañ fay ñu rey ay nit quatorze personnes rey nañ lu bëree bëree bëri def duñ leen def dara wala buñ la jàppee may la liberté provisoire te moom avocat bi maa ngi ko dégg maintes muy ñaan ay liberté provisoire te Alioune Badara Ndao ku ko xam-xam ne man dégg naa euh, suñ Saliou Sow naka yàlla yooyu mu wax ko bi mu demee ci premier procès xaw ma deuxième mu ne kii xol bu fees dell ak Alxuraan wax dëgg yàlla ñaaw na ñu koy denc yenn conditions yi te loolu noonu yëpp état bu Sénégal mooy responsable bi kon ñun daal yàlla wax ci sax ñu ci mën a bari mais man am naa ci naqaru xol na di jaajëfal waa Sénégal yëpp ñu ci mm. participé ci kañal boobu ñu doon laaj yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant mais daal naqaru xol li ma ci am daal mooy loolu jërëjëf def ñu jaajëfal ko moom euh, Maram Faye xool ba tey keneen ci ginnaawam di fàttali rek euh, mbokk yi tiis nga xamante ni mooy génn patina Imam Alioune Badara Ndao allo allo salaamaaleykum. aleykum salaam. rahmatulahi saa ñu ngi lay la ziar. ñu ngi delloo ziar. dina ñaanal euh, la ci Kaolack. ñu ngi lay di wax xaaloo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mm-hmm. rama di jaale Sénégal di nga xam ne ñàkk nañ ko tey di ko jaale waa Kaolack gi ma bokkal Kaolack. Mm-hmm. muy ku ragaloon yàlla. kooku ku ma miinoon sax rama. kooku wattu alxuraan ku bëgg ku bëgg alxuraan borom fit ku jàmbaare rama bu xoogu kooko dem. Mm-hmm. waaye yàlla na ko Seydina Muhammad teeru yàlla dëkk ak gaa yu baax yi Rama. Rama Imaam Ndaw mooy koo xam ne moom la Sénégal yëpp xooloon nguuru Sénégal def ni maa Maram Faye wax léegi jiñ ko terroriste te dara amu ci. Rama torturé ko Imaam lu ko mën a dal ci àdduna yàlla ñu nag dogalam de waaye Rama boo déggee ni ñu wax nga xam ne cri de cœur day feeñ da xam ne tooñ nañ Imaam Alioune Badara ndaw te ba léegi dégg gu fenn fu mu jéggalee nguuru Sénégal gii nii tooñ nañ ko trop ba ci kanam yàlla te loolu xam ne tey euh, Rama suñu borom dogal nañ mu ñëw ci mbiram ñun ñëpp dinañu dal ndax yàlla mooy borom fa xaalu li moom mooy jëf ci coobareem kon nañ bàyyi xel ci loolu bu baax a baax a baax man imaam damaa dëkk ak moom soriwuma ko dara ma xamal ko bu baax ci alxuraan a déggante moom téléphone ci rajo lañ dégg rek ko invité ma woo ko bi ma déggee mu ne ah yow de Lom Fort yow noom dëkk mm-hmm. biñ bu ñu dajee dana ma yow de yaay député Kaolack mm-hmm. nga ne ay ndaw lañ yoo xam ne dëkk bi rek moo ñu ñor te moom dëkk bee ko ñor te imaam du mag yenn mag rama mais torture bu ñu ko torture na mag li ma wér mooy lu ko lu ko lu ko màggaloo ci kase bi ci kase yàlla ramasulaay yàlla na yàlla jubal may ngir jub waaye yàlla na yàlla yërëm imam Alioune Badara Ndao képp koo xam ne ko tiisee yàlla na yàlla fay la ko bu ci gëm te rek am nga gis sama jërëjëf jërëjëf ñu jaajëfal ko 88 la ñu euh, rek euh, di rendre hommage ki nga xamante ni moo di imam Alioune Badara Ndao te rek euh, borom bi jël ko tey ci ci guddi allo asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aleykum salaam wa rahmatullah. soxna rahmatullahi na ngeen def. ñu ngi sant alhamdulilah. Nazir Gueye coordinateur des imams et oulémas de Kébémer. ok ñu ngi lay ziar bu baax kilifa gi. ñu ngi leen di ziar di leen ndokkeel bu baax. di leen jaale également. wallaay ñu ngi jël jaal moo xam ni Sénégal yëpp ñoom ñoom la ñoo ñàkk. Mhm. ñu ngi leen di masawu koo xam ne. li mu waroon a dund ci ngor yëpp dund na ko li mu waroon a dund ci jom li mu waroon a dund ci diine ci tabarakallahu taxawaayu réewam yëpp taxaw na ko mm-hmm. Sénégal ñàkk na koo xam ne tey gëñ na ñàkk ku mel noonu mm-hmm. bu fekkee benn par parloo amul na euh, wax lu noonu amul senegal ñàkk na kum gëj a ñàkk ku xam Badara Ndaw man euh, benn yoon lañ mas a bokk assemblée générale mm-hmm. lu dul loolu gisantuwaatuñu xanaa di déggante waaye nit la koo xam ne mm-hmm. yàlla dana àtte yàlla dana àtte ñu benn bindkat di wax ni sa dossier suñ ko àttewul bu baax jël ko jox ko yàlla yàlla dana ko àtte ndax alaysa allahu bi ahkamil haakimiin yàlla xam na ni yàlla dana àtte incha allah moom nag li ko waroon def na ko mooy mosul yox yox yi ci li mu gëm ci réew mi ci ci diini ji ci taxawaay xëpp nañ ko côté bu nekk xëpp nañ ko côté bu nekk waaye toujours rek Alioune Badara Ndao lay doon soo làndee boppam rek ab jullit nga fay fekk nitu alxuraan nga fay fekk yal na yàlla wàcc ko àjjal yal na ko yàlla texeel yal na ko yàlla yërëm incha allahu yàlla dana àtte incha allah jërëjëf maa ngi ma saw wal fajir yëpp nag ndax moom ku amoon taxawaay la foofu ci hmm. ci ci taxawaay yi nga xam ne mooy taxawaay nit ku responsable nit ku responsable asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu aleykum asalaam wa rahmatulah taala wa barakaatu ñu jaajëfalaat ko bu baax euh, mi ngook di masowaat ñëpp rek ci tiis ku di mel jël keneen ci buumu jokkoo bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum aleykum asalaam rahmatulah waa kay ñu bu baax. maa ngi lay ziar bu wér. bi di wax euh, ala ci mhm. wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mm. imam Alioune Badara Ndao ku baax a baax dem na borom ak ku àndu kër borom bëgg baax dem nit ku bëgg euh, Sénégal baax dem nit ku bëgg Sénégal yëpp jàng alquraanul karim dem na kon yal na ko yàlla yërëm te yéexam te ko ay janna firdawsi firdawsi nag firdawsi ak nag yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam ñu mu bàyyi ginnaaw yal na yàlla euh, wuutu ko cëf yal na yàlla dimbale ña ko wuutu ca gannaawam euh, liggéey yombalal ko yoon yi parce que imaam Alioune Badara Ndao ay ay mbiram bëri woon na tabax juma nii jaam yàlla tabax daara jàng alquran yooyu moo nekkoon ci xol bi kon nag ki nga xam ne moo ko fi wuutu yal na yàlla yombalal ko yen bi yal na yàlla yombalal ko yen bi barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jàll Sénégal yëpp ñu ngi jàll Sénégal yëpp hmm. euh, wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu aleykum asalaam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ñu jël keneen Mouhamed rek ba tey di taataan seen ay kaddu ci euh, ki nga xam asalaamaaleykum aleykum asalaam Adja Rahma Seydi Jamil maa ngi lay ziar. Seydi Jamil delloo nañ la ziar. macha allah ndeysaan di métti lu rek la xew macha allah di wax ne daal. Mhm. demuk jëmm ji jooyloo na moom képp kuy jullit laxad faqadal islam fa duniyaay kërum métit nañ ci bàyyi xel ñun ñëpp. imaam Alioune Badara Ndaw day wax dëgg yàlla ku baax la woon fii may wax ak yow de yàlla xam na ni mhm. ñu ngi war a dem robbi ji benn mbokk bu ñuy jege lool lool lool moo tax adduna bi fi mu ne. Mhm. lépp lu waay di lu dul jaamu yàlla yaa ngi nax sa bopp nañ jaamu ji yàlla ñun ñëpp. te xam ne bés yii nii kenn kenn kenn kenn du ko kenn du ko jaas mm-hmm. imaam Alioune Badara Ndao nag wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla moom ñaanal na boppam ndax it nit koo xam ne ci alxuraan rek lañ ko xam mm-hmm. selloon maandu woon yàlla ragaloon yàlla mënoon a am ay milliards lu ne mu mën koo am mu góob ci alxuraanam ah kooku daal moom wax dëgg yàlla amul len len rek luñ a wax ci moom lu may rek di ko ñaanal yàlla hmm. mu xaare ko ci janatul firdawsi al ahla nit ku baax nitu alxuraan hmm. alxuraan bu pare di ko xamle hmm. te nee bu doon tey li ñuy fayee ci salaire xaalis bi gën ci salaire mooy kiy jàngale di fayee njëkk liy fayeeko yiy jóge ci alxuraan nee loolu moo gën ci ci wàllu kon kooku ñaanal na boppam ñu koy xanaa leen di taasu ci barkeem rek macha allah di ñaanal yàlla di di ñaanal Sénégal rek en tout cas suñu xol moo xaw a fees daal mais imam Alioune Badara daal ak Sidi Lamine ñëpp rek ñu ngi leen di ñaanal mm. waaw jërëjëf jërëjëf soxna Rama jërëjëf jaajëfal ko bu baax euh, di euh, daataan ba tey euh, ci buum bi Mouhamed asalaamaaleykum allo oui allo asalaamaaleykum aleykum asalaam sëñ bi baal ñu rek nga fay rajo bi waaw fay naa ko Adja Ramatoulaye Fall oui yi mooy ñu ngi lay ziar ñu ngi delloo ziar waa ndax neex gépp ngi lay nuyu mm-hmm. Eh, di wax inna lillahi wa inna ilayhi suñu mbokk moom fi def yàlla na ko yàlla xare ca àjjana yi gën a kawe moom bépp jullit bu mu fa fekk ak bu ko fa fekk ak bu mu fa demandool yàlla ni moom àjjanaam firdawsi yàlla na ko ci dugal eh, mhm. mhm. yàlla nag ci joxe leçon la dëkk moom mhm. tey leçon bi mooy mooy leçon yi gën eh, kenn saxu fi yal nañu yàlla xiir ci def lu baax wax lu baax ndax bis bi ku ne dina ko am mhm. kon yal nañu yàlla boole ci ñi mu xiir ñuy def lu baax mhm.